asalaamaaleykum patriote yi maa ngi leen di nuyu patriote yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay xew yi lu mu neex neex neex neex neex remerciement yi dégg naa ko waaye suñu mbokk réseau sociaux sociaux amuñ sa fay de amuñ sa fay particulièrement TikTok particulièrement TikTok combat bi ànd ngeen koog noonu jéem na noo tëj réseau sociaux bi ñu wuti loolu lépp ci xeetu réseaux sociaux yi la bokk xeex bi ànd ngeen ko ñun saahiran wa baatinan waaw kon réseaux sociaux sociaux sociaux lu ñu am dees na ni ci sant sociaux yàlla na sa jàmm yàgg ànd nañoo yéen xeex bi combat bi particulièrement TikTok particulièrement TikTok yi ngeen ñuy jàllale message yi léeg-léeg sax ngeen supprimer ñu ñëw daal di lànk bind ngeen defaat ko léeg-léeg ñu signalé nu compte yi waaye tenir nañ ko ànd ak yow réseaux sociaux ba aksi léegi nag na nga àndaat ak ñun noonu ñu fas yéene défendre projet bi ba am lu ñu bëgg kon sénégalais yëpp ñi ngi sant bu baax di gërëm réseaux sociaux sociaux ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm particulièrement tiktok tok tok tiktok ñoo ngi lay sant bu wér combat bi moom ànd nañ ko sahiran wa baatinan yàlla xam ne ko tan noon la ñuy àndee gouverner réew mi Sénégal jëm kanam jaaraama réseaux sociaux